mooy ñaar dugg géejewaay nag rassisté ko am ci neuf victoire ñaari mbër dese ko muy Lac de Guiers numéro 2 ak Balla Gaye numéro 2. Boy Niang dafa bëgg daan Lac de Guiers ngir dem ci ci ci ci Balla Gaye numéro 2 lan la Balla Balla di wax Lac de Guiers. waaw d'abord dañuy sant yàlla bu baax di nuyu si yéen di sant suñu ñaar waajur rawatina waa Casamance bu ñuy jàppale ñu dëkk fa suñu papa yi dëkk fa juddoo fa yaroo fa di sant ñëpp képp kuy supporter wu la da guerre numéro 2 rawatina waa Géejawaay di ko ñaanal yàlla ndam suñu borom rawatina njawatu Cheikh na Cheikh Sadou bi yëpp ñu leen nuyu baax di leen siyaar xam naa la da doom la xarit la euh, fépp la bëgg muy tijaan muy murit muy xaadir muy ñaseen ñëpp ñu ngi koy ñaan tàllal suñu loxo ñaan la de yàlla may ko ndam ci jëli boobu benn wérante. mais Balla Balla Balla mu ni bu kenn yàkkamti sa kaas yéen ñëpp da ngeen jot ku ci nekk sa kaas je pense que ne man li ma def ci làmb aw sax. droit di tontu benn question ci benn mbër ak ku mu mën doon li am solo mooy Lac de Guiers jàppale wu ma ko dañoo bokk ndey bokk bokkuñu lu muñ ko séddoo muy géejawaay rawatina Casamance dañuy tàllal loxo ñaan yàlla yàlla may ko ndam maa ngi ci biir aw ou bien maa ngi sibiti wala maa ngi koy jàppale loolu leer na askan bi du tey rek laa musa sonn ci combat Lac de Guiers numéro 2 rawatina bii bi nga xamante ne combat la boo xam ne moom moo ñu gën a bëgg moo ñu ko gën a fonk di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci jël bu set wi ndax géejuwaay gi yëpp ñu ngi préparé combat bi rawatina ay mbokkam ak ñu ko bëgg di ko sonn di ñaan gi mu am ndam rawatina waa Casamance bu baax a kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye ñëpp benn bopp lañ ndax dañu doon dégg ñi dañoo xuloo waaye tey Balla dafa ñëw wane xam nga tey ci géejewaay boo dee mbër bu mag. Lac de euh, Balla Gaye 2 la ak Lac de Guiers. ñu des ñëpp suñu ginnaaw lay topp loolu yàlla moo ko doon mais li ñu xamante ne mooy suñu devoir ñu taxaw Lac de wane na ko nag géejuwaay gi yëpp ñu ngi taxaw sa kanam ñu ngi taxaw sa ginnaaw yàlla may ko ndam bis bi loolu mu ñu findi ñu taxaw ñaan dëkk loxo tey. seen dugal bu ñu waajal la nag ndax euh, combat bi dafa fekk tey géejuwaay gi ñëpp bëre ba pare di jàppale Lac de Guiers. moo tax combat bu ñu waajal la. Balla Gaye booy ñaar dee ñu dégg ko micro mu ne dafa yor cas siwo fondé boo xam ne. tànqal na ci waa géejuwaay yow yaa ci des ak Lac de Guiers 2 loolu nan ngeen ci xalaat. non xalaatuñ ci dara loolu question la ak wax la rek donc. parce que ba mu ko waxee ba tey mi ngi dugg géej waaye di daan. waaw xam nga yàlla moom bu dogalee ni da ngay am ndam kenn mu ci dara. mais ñu ngi ñaan yàlla dootul gis matt sax muy booylee fanda dafa bërëg mbër bu ne bërëg ay champion làmb nag ak Boy sax yàlla moo war a dogal te ñu war a bëri rek mais la de guerre bëri naa ku ne ba ku bëri Yékini bëri Modou Lo bëri Eumeu Sène kon combat war la mën a jaaxal am nañ droit pousse ko dañuy pousse rek yàlla na tàq nag dernier mot di wax ñëpp képp ku dëkk Géejawaay dëkk Casamance ñoo ngi lay tàllal suñu loxo nga ñaan la dëggeer yàlla na ko yàlla may ndam